ñu jégalu bu baax a baax eh, ci eh, dog-dog boobule si naw ma ba maa ngi léegi eh, nuyu ñu doore xëtu yéenikaay ak Walf Quotidien bi daal di xëy fësal nag kaddu Jean Christophe Rufin moom nag moo fi nekkoon ab ambassadeur ci ambassadeur bu France ci diwaanu Ndakaaru yëkkati na nag yiy ci coow li nga xam ne des na ci diggante Ousmane Sonko ak njiitu réew Macky Sall moom ancien ambassadeur bi nag lu mu toxtal mooy ne xeex la boo xamante ne nii door na waaye xamaguñu fan la jëm muy xam ne nag Sonko jamono ji dafa taxaw taxawaayu président bi gën a mag ci réew Sénégal te firndeel na ko ci jafe-jafe gi mu ak wàllu yoon ak askan wi ni ñu génnee ngir jàppale ko ci noonu itam muy xam ne bu fekkente ne dañ ko bëgg a liquider maanaam euh, jeexal taxawaayam ci langue politique dina doon lu métti loolu yëpp ci Walf Quotidien l'observateur l'observateur yi tamit daal di xëy fësal nataalu Ousmane Sonko mi njuju léegi ay kàddoom ne Ousmane Sonko les actes contre nature ak contre nature bi nag fa ne woote bu njëkk ak léegi li ñu seetlu mooy ne xaw na am ay coppite yu yi nga xam ne moom leader bu Pastef mu ngi koy euh, fësal ci ay message wala sax ci ay tukkib nemmeekoom euh, journal bi ne sax moom amoon na yéene leen gisante xal général di Mouride waaye mbir mi am na lenn lu ca euh, am lu ko téye mu am visite boobulee lan moo tax bi di ko fësal ci ñeenteelu kayit bu Walf Euh, l'observateur euh, critique critique yéen i kaay nag moom xëy fësal euh, kile di ba ngoom ca ginnaaw stade bu fees dellati doomi aadama mu mel ni nag jamono ji tension politique bi yëngu na fi ci réew Sénégal Farba Ngom nag mu ngay dajale ay troupam ca diwaanu Fouta ñu nemmeeku nag doomi aadama yu bëri yu ko wuy si ci meeting am gile Vox Populi Vox Populi nag pouvoir bi jamono ji dañoo nekk ci ab logique bu leer mooy ne dañu bëgg defaruwaat loolee nag di kàddu yi euh, Moussa Tine nekk leader bu alliance euh, démocratique euh, penco bokk tamit ci taxawu Sénégal muy xam le ne nag wante ñoom opposition bi dinañu ñëwaat bokkaat ci langue politique te boobaa dina wexaat ci ndoddi njiit yi. le quotidien le quotidien yéen kaay nag moom daan na mbiru Sonko jamono ji nag lu jëm ci benn bokk yaakaar ñoom ñu ngay takkaat seen i jàjj taxawaat ngi fasalaat seen bopp ci langue politique yi Macky ak ay ñooñam jamono ji ñu ngi xool nees def rek mën a euh, taxaw taxawaayu buur ci réew pa Sénégal las yéenekaay nag ñoom ñu yëkkati loxo ki nga xam ne moom moo di Farba Ngom ne Farba Ngom ak ay naataangoom jamono ji ñu ngi résister euh, di amal ay mobilisation euh, ni ki Fouta bi mujj bi firndeel na ko les échos les échos nag moom xëy fësal Ousmane Tounkara mi ñi rumanaat ay muy ay mbiram ay avocat am yëkkati yee yàbbi ne ñu ngi xaar mbir mi ngir ñu wax ci laataa rek ñuy bañ ñu daal di koy extrader buñ ko extrader ay avocat moom association sénégalais yi nekk ci Amérique nag ñu ngi organisé wu ngir rek daal di amal ab levée de fonds ngir jàppale ko kii di Ousmane Tounkara plainte gi nag mu ngi jóge ci état bu Sénégal ni Ousmane Tounkara mi day amal acte terroriste ba pare yëkkati ay kàddu yu ñaaw gàll ko ci seen ndodd ba ci ay menaces de mort dinañ xam nag fan lay mujj fi lekk fanweeri fan ci euh, fan ak benn ci weeru mars. lii moom daal di xëy fësal mbirub 94 euh, milliards yi ak titre foncier yi mën a nemmeeku ni banditisme bi mu ngi gën di euh, wulee ñaay dem ba jàpp ne bu ñu ko seetaanee dina tour ay déret ndax euh, coowal 94 milliards yi ba tey boolu muñukaayu askan bi feesagul ci loolee li nga xam ne nag moo jëm ci wàllu titre foncier yi ak jafe-jafe coowal suuf moo gën a fës ci fànn woowu sax lañu fësal beneen activiste di Guy Marius Sagna ni ki tey lay jàkkaarloog doyen des juges ñu xool fan la wane ci mujj gërëm ak ñooñam yi ñu jàppandoo. direct news. moom itamit daal di xëy fësal euh, saltan bi nga xamante ne nii Benno Bokk Yaakaar mu ngi koy jànkuwanteel ci banlieue bu Ndakaaru ca Dakar ak Pikine euh, ba ca Fouta naam. amal nañu ay euh, manifester ngir fësal seen taxawaay wante am na ñoo xam ne d'accordu ñu ndax ndaw ñi nee nañu loolee ñu def ñu ko fenn ba ca diwaanu Fouta méga meeting bi nga xamante ni am na ca Fouta yi tamit lu toll ci dizaine de milliers ay doomi aadama daje fa ñoom jàppee nañ ko ab xawaare politique bu ñu sukkandikoo seenu kàddu. la tribune la moom tamit ca la xëyee ne bennoo jamono ji dafa mel luy waaj a tas fitna nga juddu fa ci diwaanu banlieue bu ñu doon amal seen AG ba pëcc xoolu mujjee ba sax ay ci ay gaañu gaañu l'évidence l'évidence yéeni kaay moom xëy fësal scandale foncier di coowal suuf ba nga na ci diwaanu Thiès ci ndodd yi njiital euh, Descos di commandant ba kaka def nag di Ousseynou Diouf moom moo yóbbu njiital Descos bu euh, Thiès ci kanamu inspection générale d'État ngir ni dafa amal ab manipulation di gis tërëx ak i tamit diffamation ba ca abus de pouvoir boo xam ne gàll nañ ko ci ndodd yi commandant gile euh, source A source A moom gis coow la ca des ni ñaar fukk ak ñaari doomi aadama ñu ngi représenté ay effets secondaires yu jéggi dayo moom njiital programme élargi de vaccination docteur Ousseynou Badiane wax na ci xët yi ne leeral na lépp ne fukk ak juróom-benn yi ci vaccin Sinopharm la jóge juróom-benn mooy AstraZeneca te amul benn tiitaange guñ ca toftal ndax loolee mën nañ ko contrôler Mm, libération libération yéen kaay nag kay rapport audit bi nga xam ni chambre de commerce def nañ ko fa euh, ci rek euh, coow la nga xam ne moo fa des nii dafa am ab luubal gu ñu fa nemmeeku waaye libération nee na lii soleil le di jox kàddu euh, kii di professeur Amadou Makhtar Mbow mu ngi daal di sargal nit ci samedi gii mu yëkkati nag ay kàddu ci hommage rek am taxawaay bu yaatu jëmale ko seen dëkk waaye beneen continent bu mel ni Afrique di sàkku njiitu réew Macky mu gën a soññ ndaw ñi ngir ñu jiital euh, patriotisme. Dakar Times Dakar Times moom xëy waxal nag ñi nga xamante ni moom moo di euh, état d'urgence sanitaire bi ñu daal di lever couvre bi ñu daal di euh, dakkal jamono ji nag Dakar pëccëxoo bu rek ñi nga xam ne secteur informel bi gis seen bopp baax a baax ci liggéey ak ci njaayum guddi gi ñeneen nag ñi doon yàkkamti lool festivité yeeg fête yeeg yooyu moom samedi gi moom weekend bi neexoon na lool ci ñoom Dakar ko fësal. mooy gars yi rek. ñu <laughs> moom taluñu ko moom ay kilifa la. <laughs> sunu lamb. <laughs> sunu lamb dañu koy jeexalee ak euh, combat bombardier bi nga xam ne avorté na li ko waral nag mooy ne. kile di euh, euh, bombardier dafa rek subir benn attaque bu ndaw bu ko rek tee mu amal euh, combat am gile loole nag sunu lamb di ci dikkat di ci indi firndeel ci ñeenteelu kayit bu xëcc bile loole sax moo daal di ndar képpee li yéen kaay xëy fësal tey di la sant di la gërëm soxna Aïssa Diakhaté kon mbokk yi ci foofule ci lañ yëkkatee jotaayu xibaar yi ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax magay mi fare woon ci xar ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laan waa mi naan électricité générale si nañ yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa bureau sa kër